peuple sénégalais. donc borom benn baat ba su waxee ren balaa waxati déwén. national pour sa population. ñëpp ñàkk seen liggéey ndax feebar boobu c'est des chômeurs conjoncturels. libérez les otages libérez. benn jeune de l'ordre yi dañ ko doon li nga xamante ne moom moo di bal ngeen xamul ba xam dund na wala dee na. aujourd'hui on nous cache beaucoup de choses. dëkk priorité la. dañuy lekk naan faju. ce que ces statistiques la prouvent comme on dit en wolof y a la réalité. priver une génération de l'expérience du travail, c'est les condamner à la déraison et les préparer à un lendemain mortifère. Quelle soit la durée du mandat, nul ne peut faire plus de deux mandats. mën ngaa nekk patriote te doo nekk góorgóorlu Ousmane Sonko patriote la mais du góorgóorlu. Dana Au Sénégal, Khalifa Sall retourne en prison. Le Karim Ouad, sa détention est arbitraire. Gakou, futur candidat à la présidence. Aminata Touré est sur un siège éjectable. Ousmane Sonko, victime d'un complot au scrutin de 2021. passer deux mandats sur le peuple sénégalais. borom benn baat ba su waxee ren balaa waxati déwén. national pour sa population. ñëpp ñàkk seen liggéey ndax feebar boobu c'est des chômeurs conjoncturels. libérez les otages libérez. benn jeune ñii di force de l'ordre yi dañ ko dool li nga xamante ne moom moo di bal ngeen xamul ba xam dund na wala dee na Aujourd'hui, on nous cache beaucoup de choses. dëkk priorité la dañuy naan faju ce que ces statistiques-là prouvent, comme on dit y a la réalité. une génération de l'expérience du travail, c'est les condamner à la déraison et les préparer à un lendemain mortifère. Quelle qu'en soit la durée du mandat, nul ne peut faire plus de deux mandats. mën ngaa nekk patriote te doo nekk góorgóorlu Ousmane Sonko patriote la mais du góorgóorlu. partout. Au Sénégal. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa suñu mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ñëw seetaan fii ci 2A TV kontaan nañu loogu jàkkaarloo ak yéen tey guddi na waaye xaj na fi internet moom lu ne la mën dañ leen di proposer seen émission bu tey bi président ñu ànd ceeg Alpha Diallo muy suñu gan waxtaan bu yaatu agriculture Sonacos politique Sonko terre euh, pêche la douane sénégalaise Alpha dikk na ci lu bëri administration beeg lépp Sénégal fi mu toll ab sénégalais bu nekk ci diaspora waxtaan nañ ci ak moom mu di Alpha Diallo mu nekk fële ci Paris am lool lu ko metti bokkook ñu bëri nag c'est la réalité c'est la situation vécue au Sénégal l'indignation totale partout dans moom monde sur ce qui s'est passé hier entre Ousmane Sonko ak les forces de l'ordre bref loolu yëpp dikk nañ ci ci président tey waaye laataa loolu am na document bu leen proposé boo xam ne Alpha intervenir na ci ak suñu beneen baay ñu wax ci pêche wax ci teer nanu setaan bu ñu si jógee dañuy fatu ndànk joxante dig daje beneen yoon incha allah nu xool alfa ci li mu dikk yëpp. Khalifa Sall retourne en prison. Le Karim sa détention est arbitraire. sur un siège éjectable. Ousmane Sonko, victime d'un complot au scrutin de De l'émission président ak euh, téléspectateur ou TV yi fépp fu ñuy mën a seetaanee ci àdduna bi boo xoolee démb ay images yu ñaaw gis nañ ko et quelque chose de digne d'un pays antidémocratique ak euh, d'un Far West. Euh, je veux parler de Sonko mais avant may lii lu doon xeeñ la lu yàgg boo xoolee euh, depuis événement wu euh, yi da gis ne police bi dafa jëloon 1-0 il fallait que mu def une démonstration de force te li mu def bii passé c'était une stratégie une stratégie boo xamante ne entourage Sonko war nañ ci jàng bu baax et surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo yor la sécurité de de de Ousmane il y pas de raison ñu toj vitre amul benn raison parce que il était pas euh, violent wootewul. pour ñu xeex xeexul ci boppam et aussi et surtout dawul kon donc il n'y avait pas aucune raison de le traité ainsi ñu toj ko avec un grand calme Ousmane Sonko gis nga ko fi mu toog ba léegi bougé wu fa euh, rusitu verre yëpp dal ci kaw ñii naan mënoon na ko gaañ et cetera mais boo xoolee vitre oto ni muy tasee bokkul vitre seetu ni muy tasee vitre oto est appelé à que bu tasee ci ku mu dal du la gaañ. peut mën na mën na def ay quelques dégâts de de mais du la gaañ boo xoolee vitre oto bu tasee rek day mel ni lu mokk rek kii mais bokkul ak vitre seetu nga xam ne bu tasee rek day def ay armes yu garaaw yoo xamante ne ci ku mu daan mën na la gaañ. li nga xam ne président Ousmane Sonko daj na ko dem c'est vraiment injuste et injustice boobu commencé wul démb c'est une euh, comment dirais-je une répétition d'injustice. Et il y a un, un grand philosophe du Moyen Âge, euh, Saint-Augustin, qui disait face à, face à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Et démb loolu la Ousmane Sonko doon essayer incarner parce que moo tax nga dégg ko ci discours bi mu ne est-ce que je suis en état d'arrestation donc s'il n'est pas en état d'arrestation il avait le droit de résister benn et deuxièmement dafa amaat tamit euh, benn philosophe bu mag bu ma yàgg di lire buy wax un long sacrifice transforme un cœur en pierre li ñu nekk di def ni jaay doole dafa nekk di renforcer volonté wu population bi pour que ñu fasse face à cette injustice et li gën a ndaw lii moo poussé woon la population sénégalaise en 2011 pour faire face au ticket présidentiel alors qu'est-ce qui s'est passé à la tête du président de la république pour dire que ne bu indee lu gën a tar loolu population bi duñu réagir je sais que il a reçu un grand coup lors des événements lors des événements de mars 2021 et li policiers yi daw aussi à Mbacké neexu ko c'est pour montrer que Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ñu so sont en train de gagner du terrain il fallait que aujourd'hui wala démb que mu marque aussi un coup pour wane l'état mu ngi fi mais l'état c'est d'abord le peuple et que le peuple est avec Ousmane Sonko donc kuy jóge tribunal gisuma ban problème la am ne yoon bii la war a mën a jaar et que vous l'encadrez mu jaar yoon boobu Sénégal nekk ci jàmm et vous êtes infiltré par des étrangers si seeni corps qui dirigent les assauts ba pare di braquer ay armes sur la population sénégalaise au nom de quoi bu fekkee dañ leen di former dañ leen di former waaw mais nañ leen yem si seen centre jàmbaar yi formation bi ak seen présence foofu la war a yem pas sur la population sénégalaise di buux les populations sénégalaises di leen braquer des armes sur eux maintenant li xew-xew na et une très grande leçon devrait être prise surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk Pastef parce que wane na ne la sécurité du présencement son Sonko est à revoir et surtout de manière tactique parce que boo xoolee qu'est-ce que les les forces de l'ordre ont fait ils ont ñi nga xam ne nii ñoom ñoo gérer sécurité bu fekkee ne dañ la jox nga gérer sécurité benn nit force de l'ordre mën na la jox ordre mais yow da nga am une mission mooy protéger li nga yor mais nangul ñu mënate la wala jël la par force teggi la fa ils vous ont isolé ils ont fait ce qu'ils ont fait mais liñ ko def imaginez un peu que Mélenchon monsieur Macron dem def noonu Mélenchon en France c'est impensable c'est-à-dire que police bi du nangu du xalaat di def loolu et aujourd'hui la police les forces de sécurité et de défense vous avez un rôle d'ordre public vous avez un rôle régalien aussi mais aussi bu leen fàtte le procès de Nuremberg le procès de Nuremberg moo dajale woon ñi nga xam ne ni ñoom lañu gaañoon ci jamonoy nazi yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon côté Hitler projet boobu bi mu tegee dafa am ay leçons yu ñu ci tiire leçon yooyu dafa am ay principe de droit international yu ñu ci jële ci principe 4 bi dañ ne képp ku commettre un acte de violence gaañ nit ne pa respecter les conventions walla les constitutions wala lu mën a doon ba ñàkk wala gaañe wala dee am ci responsabilité bi nga xam ne kiy joxe ordre bi même responsabilité boobu la ki nga xam ne moo exécuter ordre bi am alors regardez ce que vous faites je retourne ci li ma waxoon vous pouvez changer les choses vous les forces de l'ordre parce que face à une loi injuste nul n'est tenu d'obéir démb li ngeen def Ousmane Sonko ñaaw na ñaaw boo xamante ne amul kenn ku ne ordre ngay respecté on peut pas me dire que vous voulez faire de la sécurité pour Ousmane Sonko tout en l'extirpant ci dans un domaine privé fi nga xam ne ne moom la gën a sentir boppam la moo tax Ousmane Sonko toog ci oto bi nangu parce que dafa yaakaar ne mu ngi ci ab titre privé mu ngi ci foo xamante ne il se sent en sécurité et il est pas n'importe qui aussi donc yéen ci loolu li gënoon simple c' était pas de le prendre et de le mettre ci seeni oto mais c' était de l' encadrer pour que mu dem ci pour que mu yegg fi mu war a mën a yegg et j' que histoire bi ne se répétera pas pour la population sur la population sénégalaise et surtout sur injustice bi sur injustice bi nga xam ne euh, Ousmane Sonko mu ngi koy subir tous les jours ma ñëw nag euh, ci beneen. Euh, force de défense et de sécurité mais sur le plan économique boo xoolee économie Sénégal ni muy doxee dangay gis ne état du Sénégal dafa jël lu bëri eh, sëf ko li ngay wax li ñuy wax la douane alors que dans un pays normal la douane warul nekk fu ñuy utee xaalis la douane sert simplement à réguler un marché bu fekkee sa biir dëkk dafa am yu bëri yoo xamante ne da nga ko fa manqué waru ko jëli bitim réew l'État de par la douane ou seen ministre de tutelle ministre de l'économie dañu war a faire en sorte que loolu mën a accès bi mën a yomb ci population boobu ci misaal li ñuy lekkee lu bëri Sénégal li ñuy dundee li ci ëpp Sénégal ceeb la boo xoolee comme état bi amagul une politique bu ko mën a yóbbu sur l'autosuffisance en riz day importe ceeb moo tax nga gis importation ceeb yépp taxe bi mu waroon am normalement amu parce que loolu moom mooy rôle ndax lii dama koy dundee amu fi bu ma koy dugal dama koy yombal pour que ay problème bañ a mën a am ci biir dëkk bi. c'est le rôle de la douane mais tey jii bu fekkee yaa ngi dem bay yaakaar ci sa douane un quart de ce budget là c'est un problème donc conséquence bés boo demee ba amatoo certains moyens ni nga mën a def rek mooy hausser la douane et loolu tamit day wane ne dëkk dafa exposé wu trop sur l'importation ma fàttali leen ne en France dafa am kenn koo xamante ne dafa gëmoon ay exportation importation ñu koy wax Colbert bañ na sax la mercantilisme boo waxee le colbertisme ñoom ñaar benn la mais dafa exposé woon la France de telle sorte ko ba français yi xam ko ba jour sax bi mu deewee cercueil-am bi ñu koy yóbbu français yi dañu génn di yuuxu cercueil-am pour wane nan la exposé woon la France alors tey jii si exposition bu mel noonu la Sénégal toll sur son économie de ce fait boo xoolee tey inflation yi nga xam ne moom mooy am Sénégal da gis na ni ni day permettre à l'État mu absorber sa dette pourquoi parce que inflation tax la booy fay te xamoo ko ndax comme taux bor benn dëkk ñu ngi koy calculer ci bor bi muy am sur son PIB donc plus que le PIB et important dans un pays donc moins le moins sera pour pourcentage la léegi moo tax ngay gis prix yi di augmenter état bi même bu ci bëggee def dara il fait semblant de faire une chose mais il ne fait absolument rien du tout man dama nekkoon dama commencé depuis 2014 dama commencé dans le secteur primaire maanaam lépp lu jëm ci suuf ak bay président Macky Sall def ak politique boo xamante ne sénégalais bu fa dugg da doo am ma génn ca dem secteur secondaire industrie au moins créer deux industries Sénégal yoo xamante ne matière première bi de par la constitution du Sénégal à son article vingt cinq tiré un et aussi sur le code des investissements bi ma jaar pour indi euh, les machines de manière un peu allégée dañ ma garantir ne matière première bi bu ma ko soxlaa dama koy am mais aw ma ko kon cela veut dire que aw ma ko pourquoi parce que dañu protéger yeneen secteur wala yeneen étranger ci biir dëkk bi pour que ñoom matière première boobu ñoom ñu am ci même mise comme par exemple boo jëlee gerte gi avec l' accord bi nga xam ne ne Sénégal signé na ko ak la Chine de 2014 à 2024 gerte gu fi am ñu jël ko yóbbu loolu noonu yëpp di pénaliser képp koo xamante ne day def industrie de transformation d'arachide ci biir Sénégal mais tey je vais pas venir m'accentuer sur ce secteur là pour wane ne nan la ñuy tuyee à petit bépp sénégalais bu nekk. dans le secteur primaire et dans le secteur secondaire di jéem am dara di faire avancer le pays ñoom ils pensent que ni mettre les étrangers foofu noonu avec une masse monétaire plus importante moo leen di jox seeni croissance moo tax résultat bu croissance bi jotee ñoom duñ ko gis parce que la majeure partie des fonds seront expat expatriés donc bu fekkoon nag euh, euh, croissance boobu man maa ko créé sénégalais bi moo ko créé donc day nekk ci biir dëkk bi ñun dañ koy joxante suñu biir dama koy jox sama cousin dama ciy may kii dama ciy may kii donc la croissance sera inclusive mais pas exclusive bu fekkee ne tey jii ñëw nga dans le domaine tertiaire dàq nañ ma secteur primaire dàq ma secteur secondaire ma dem secteur tertiaire li ma animé ma dem secteur tertiaire mooy yàlla dafa def secteur yi ma def noonu yëpp dama ci am expertise yoo xamante ne am naa ko sur le plan euh, en tout cas si étranger fa ko jële bi ma gisee ne Sénégal am problème transport am problème parc automobile accident yi bëri parce que tamit da xam ne Sénégal accident yi lu mu bëri bëri environ cinquante à cinquante cinq pour cent de accident yi est causé directement par véhicule yu ndaw yi et un jour j'étais avec mon frère euh, boo xamante ne euh, France la yaroo la màggee benn jour mu gis benn taxi Sénégal mu xool ma ba mu yàgg mu ne c'est ces genres de voitures là qui fait que le Sénégal n'avance pas donc mais en fait en réalité nga gis ne ne il y avait un réel besoin de changer les choses mais le déclic bu mu ñëwee mooy quand les applications de mise en relation commençaient à proliférer au Sénégal su ma jumul il y en a quatre ma ne nag il est temps de créer une chose de créer une entreprise de transport avec des véhicules confortables et des chauffeurs qui peuvent transporter yu mën a déplacer nit en toute sécurité on a choisi de jënd ay oto yu baax yu xaw a mais de mettre à la disposition des Sénégalais donc on a acheté une dizaine de véhicules pour mettre ça sur le marché sénégalais et pour le transport bi ñu ko jëndee et jadis on envoyait des véhicules il y a six mois par exemple même véhicule bi ma doon yóbbu Sénégal il y a six mois on me on me un million six cent mille ma génn oto bi mais à ma grande surprise ma yaakaar ne looloo fa nekk ba léegi ma ñëw daanaka les prix on doublé sous prétexte que douane bi léegi dañ fi indi ay nit ñu bees. qui font respecter simplement la loi mooy maanaam ñu dem ci argus bi argus bi c'est un document douanier bu lay permettre nga xam oto bii ngay indi Sénégal ñaata lañ ko côté yow a partir de prix boobu nga gis ci argus bi moom ngay déterminer avec un calcul très complexe boo xamante ne su ma ko doon expliquer fii day gudd pour nga déterminer oto bi ñaata lay fay en douane ma ne leen ah ma yéeg wàcc yéeg fu ne ma dugg fa ma ne leen c'est une surprise pour moi est-ce que vous pouvez faire quelque chose ñu ne ma on n'a rien à faire il faut payer trois millions deux cent par auto d'accord on a payé léegi si calculu Argus bi ndekete ñoom dañu bàyyi benn prof ndollu vingt cinq pour cent ne la vingt cinq pour cent boobu au fait en réalité c'est pas une réduction mais nee nañ dañ ko bàyyi dañ ko war a diviser en trois boo xoolee oto bi nga xam ne ne chaque oto bu ñu ma bàyyilee vingt cinq pour cent yooyu si seen calcul ñoom c' est deux cent trente cinq mille pour chaque part maanaam c' est à dire deux cent trente cinq mille fois trois léegi nag trois yooyu nee nañ benn bi mooy réduction bi ma moom benn bi douanier bee ko moom benn bi transitaire bi moo ko moom mais ma ne leen y a quelque chose qui ne va pas vous pouvez pas réfléchir comme ça bu fekkee une réduction reste une réduction mais lan ban réduction la état mën a def ne ma bii ci douanier bi la jëm bii ci transitaire ma ne leen est-ce que su ma leen joxee xaalis bi vous allez faire un document ñu ne non on va faire un document mais ce qui est sûr et certain boo ko fayul sa oto du génn donc ils me font payer quatre cent soixante quinze mille francs par véhicule bon benn benn deux cent trente cinq mille bi sama part la boobu il faut pas calculer quatre mille francs par véhicule sur dix véhicules ça fait quatre millions sept cent cinquante mille yoo xamante ne dama koy jox amul trace ndeysaan ma am benn transitaire boo xamante ne depuis 2014 je suis avec lui maanaam damay bugguma wax turam parce que je veux pas l'exposer mais dañ ma yàgg wax ne ma booy jëflante xaalis dugal ci ay chrétien moo gën fuuf yenn ñenn saa yi suñu mbokk yenn mbokk julliti parce que ñële am nañ lu ñu rus a def seen éducation mais man ne leen loolu c'est un problème mais barki démb laa ci am firnde transitaire bi na ma man de sama part du ma ko jël parce que lii xaalis bu kenn warut a jël la ñoom nag bu fekkee ne ñoom dañu nangu jël seen trente deux cent trente cinq mille nañ jël seen deux cent trente cinq mille mais sa samay deux cent trente cinq mille maanaam bu transitaire bi nee na man wàcc naa man jëluma ndax loolu man li nga ma fay pour ma génne la oto bi doy na ma léegi donc du coup c' est deux cent trente cinq mille francs par véhicule laa war a fay pour que douanier yi mën a génne sama oto du ma wax douanier yëpp en tout cas corps bi sama oto jaar et tous les papiers sont corps bi sama oto jaar nee nañ deux cent trente cinq mille francs yooyu par véhicule dañ ko war a jot parce que vingt cinq pour cent yi ma wàññil durant leur calcul de l'Argus ñoom xaalis boobu 25 pour cent yooyu c'est divisé par 3 benn bi man benn bi transitaire benn bi ñoom léegi imaginez j'ai payé 2 millions 350 mille francs yoo xamante ne sans figure du figure fenn et man sama mission c'était de faire profiter aux Sénégalais d'un voyage confortable et en toute sécurité plateforme yi ma tudd fii léegi de mise en relation yi laaj woo leen ngeen laaj leen ñoom ñëpp il manque de véhicule samay véhicule ki ma nar a dénk entreprise boobu bi mu demee yóbbu véhicule yi mu war a yóbbu ils n'ont pas cru que ne véhicule bi fera exclusivement du transport de VTC mais c'est-à-dire que gis nga nit da ngay bëgg sa bopp boo bëggee sa bopp bëggal jàmm sa askan loolu laa leen bëgg yéen vous avez un problème de parc automobile vous avez un problème de transport vous avez un problème de déplacer les personnes on vous aide sur ça et vous faites ça mais lii nii yëpp day misaal benn affaire gis nga gis nga les lobbies de de de jaaykatu oto yi. comme ñooñu nekk ñu nekk ci benn wetu pont ba ñu tuddee leen pont boobu wala ay CFAO EMG et cetera c'est ces gens-là qui font des lobbies pour que oto yi ñu arrêté ko indi Sénégal mais d'accord man d'accord naa ñu protéger une entreprise nationale mais nañ ma wax ban Sénégal kan moo fiy defar oto 100 pour cent defar oto bi pièce yëpp ba mu jeex amul. tous les toutes les marques sont des marques étrangères alors yow booy importer man mooy importer où est le problème dañuy wax dans la concurrence pure et parfaite li ñuy wax l'atomicité l'atomicité c'est permettre aux gens de am ay offres yu bari mais qui a 15 millions 20 millions boo mën a demee EMG wala CFAO di dem di jëndi oto est-ce que tous les Sénégalais ont ça tous les Sénégalais n'ont pas ça même si je venais pour vendre des véhicules mais je vends des véhicules à la portée de plusieurs Sénégalais léegi nag yow nga arrêté loo ma loolu léegi kële bëgg ñële ñëpp rabaatul si ñële tey jii oto bii li ma ci daj oto yi li ma ci daj ci xaalis su ma ko doon jaay sur le marché national benn sénégalais du ko jënd parce que c'est excessif lobby yooyu nag loolu lañ ci doon wër mais sénégalais tey bu mënul jënd oto 6 millions 6 millions da koy waxaale ba sonn mais comment il va faire pour aller prendre un véhicule qui coûte 20 millions de francs nga nag nañu arrêté Sénégal yéen ñu ngi bay ceeb mais terewul ceeb bi ñuy importer dañ koy subventionner alors on peut tous être sur le marché vous n'avez pas une industrie d'automobile vous importez de l'automobile et vous les revendez la même chose bu seen oto doon dox dëgg doo leen yoon parking boo xamante ne oto la fond ba fond ce que vous faites là loolu la ñuy wax du flux tendu et que business buy dox dëgg c'est en flux tiré lay doxee alors qu'ils arrêtent il y a des sénégalais qui sont ici qui ne demandent aucun benn aide demandé ko tout ce qu'ils demandent de plus simple mooy que li ñu bëgg seen dëkk wala di ko liggéey ñu protéger leen pour ñu liggéey pour ñu liggéey ko le président de la république vous avez juré de par la constitution de défendre le Sénégal les intérêts des sénégalais fu mu mën a nekk ñun nag baadoolo yi boobu ba léegi bi nga fi toogee ba léegi on est en train de perdre de l'argent dans la wax ñaata xaalis laa ci parce que l'industrie doxul parce que l'industrie n'a même pas pu tenir debout, debout pendant plus de six mois. Alors il faut que les choses changent. Bon, peut-être c'est trop tard le dire, mais il faut que les choses changent. À comme um président mën a donnez, il faut que le Sénégal soit, le Sénégalais soit d'abord devant avant ñuy mën a xalaat leneen foofu nag foofu nag loolu laa amoon lu ma ci wax le corps euh, des douaniers vous pouvez pas contester ça yen ñi nga xam ne yéenay nekk. dem leen xool ci internet yi ngeen xool prix oto yi ni mu flambé wala ut leen ku am parking ngeen dem laaj kon kañ lañ ko gëj a indil oto bu ñu importé danaa la gëj naa ko am oto bu ñu jënd Sénégal lañ koy jëndee tab tabal ko tegaat ko sur le marché parce que kenn mënatul jënd oto léegi et c'est très cher parce que douane bi li ma fay ci douane mu ëpp fuuf li oto bi di jar waaw ah, mais quand même bon bon sans doute on terminer par la situation d la Sonacos ni ma ci interpellé gis nga euh, yaa ngi leen di dégg fan yi ñu naan euh, gerte ñu ngi fay ba quatre cent cinquante franc le kilo ay ree la ma def gis nga euh, Modou Diagne Fada vrai dóorkat la c'est-à-dire que il faut que nga xam benn affaire tey jii booy seet comment dirais-je boo bëggee jënd benn benn matériel ñëpp ne trois cent la daan jar nga dem ba matériel bi amatul nga ne yor naa mille francs di ko seet gisuma ko mais ça sert à quoi mais da nga yor 1000 francs parce que xam nga ne gisoo ko bu fekkee ne yaa ngi fay 10 000 bu la neexee nga ne gerte gi instant bi Sénégal 10 000 laa yor naa 10 ku ma koy indil kenn du ko indil c' pas parce que nit ñi bëgguñu la ko indil mais parce que amul sur le marché parce que bi nga ko waree jënd 450 dëgg jëndoo ko aussi tey jii li nga gis politique bi nga xamee ne moom la jaay faara di dawal ni instant bi boo xoolee même les syndicats yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk biir ñu génnee ils ne tirent pas sur la gestion de de sur le non-accompagnement du président ci Sall. kon donc c'est des personnes yoo xamante ne Diagne Fada moo leen yónni pour que ñuy xalaat la gestion de l'ordonnance bi nga xamee ne président joxe woon na ko pour ñu soutenir la Sonacos léegi sax dangay gis ne xam nga la moo gën a bon loolu mooy le problème entre un politicien wala ku xamul industrie ak ku xam industrie da nga ñëw takk nga xool benn usine nga ne buñ ma joxul dàngam ci xaalis duma ko doxal un vrai chef d'entreprise day faire adapter une société sans pour autant ñu jox ko trop de moyens yow yaa ngi yor entreprise mu ngi def chiffre d'affaires ngay def si chiffre d'affaires boobu nga ci am bénéfice mais entreprise buy am bénéfice pourquoi on l'accompagne il a elle a assez de bénéfices pourquoi on devrait l'accompagner on peut pas l'accompagner parce que dafa yor résultat benn deuxièmement début bi. bi bi Fara di door a ñëw da doon laaj un plan d'urgence de 16 milliards léegi sax 16 milliards yi wax. léegi yaa ngi gis ñu ne un plan un plan de relance de la Sonacos bu bu gën a élargi donc 100 milliards la te nga fàtte ci fonds Covid bi demandé woon na ci aussi milliards c'est-à-dire que li mu nekk di def nii c'est-à-dire que da nekk di demandé xaalis tout le temps. et pour pour faire fonctionner la boîte c'est-à-dire que benn boîte buy def ab bénéfice jarul ñu koy ñu koy faire fonctionner c'est-à-dire que il faut régler les problèmes majeurs gis nga Sonacos la moo tax ñun ñu si suuf di di investir ci la trituration de l'arachide mu intéressé ñu parce que moom moo am une capacité de collecte amul un un moyen industriel pour triturer sax il faut que ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf ñun ñu accompagner ko ci loolu mais avant que moom muy am son indépendance ñun ñoo fi nekk kon donc ñun la gestion de la Sonacos daf ñu intéressé au plus haut des niveaux au plus haut des niveaux léegi nag bu gestion bi euh, sooxee rek day indi problème yu rëy xoolal par exemple daaw géej xaw ma non daaw géej euh, am na boo xoolee faada bi mu demee fan yi di def tournée dégg nga muy wax une avance de facture mooy maanaam dalay jox xaalis ne la demal jënd li ma gerte daa génne d'une valeur de cinq milliards jox ko rakkam rakkam ànd sax beneen xaritam ñu war a dem jënd ci gerte googu foofu ba léegi il y problème mais ñu jënd ji gerte gi à 575 000 francs la tonne doon ko denc comme ay xelu ja jënd ak jaay lañ yor yor ñu xelu industrie ñu denc ko ci ay stockage à Touba ak yenn yi Saalum di xaar prix bi yéegaat pour ñu jaay ko chinois yi absenté sur le marché mënuñu ko jaay prix bi bi ñu ko jëndee woon sax mënutuñ ko jaayee loolu il a fallu ñu brader ko perte au moins 100 000 francs par tonne kon donc da ngay gis ne 5 milliards yooyu génnoon dugaatul léegi moo tax may wax corps yi. bés boo leen duggee Sonacos di ngeen fa gis loo xamante ne mosoo leen ko gis da ngay gis ne Sonacos mook chinois yi ñoo yem et que yi nga xamee ne ñoom ñoo yem pourquoi parce que pour une simple raison Sonacos daa bëgg baykat di ko jaay moom muy jël di jaayee chinois yi. quelle est la différence bu baykat bi jëlee jaay chinois bi te pourtant Sonacos day bañ bi jaay chinois bi directement donc loolu amul sens beneen dañuy wax ne ñoom dañuy def tout le temps des chiffres ils ne font pas yooyu c'est à vérifier parce que man toog naa DG bi toog à Paris. Eh, seen usine bi nekk Ziguinchor am problème de paiement woo ko ñu am problème mu fay même 400 millions de francs CFA may ana sa bénéfice ah te pourtant nee nañ bénéfice bi mu ngi waat ci biir Sonacos fi ñu toog noonu la ko ki nga xam ne moom moo jiite banque agricole du Sénégal promettre euh, ab ab ab crédit de 10 milliards. c'est pour montrer qu'il y a de réelles difficultés yoo xamante ne ni Fada li mu bëgg a fàttee difficulté yooyu balaa ñuy jàmbat gestion mooy que plan d'urgence bi mu yónni gars yi pour ñu kaasal ko indil ko 16 milliards yi wala vingt milliards yi wala 100 milliards boobu loolu bu ñëwee day fatt problème bi nga xam ne ni moom moo nekk di ko dundaloo waa Sonacos c'est la même chose bi nga xamee ne moom la euh, Pape Dieng defoon gis nga Pape Dieng 2018 euh, euh, su ma juumul 2018 bi muy joxe contrat de prestation bi Sonacos. Sonacos di si perte xaalis bu bëri waxoon naa ne la moo tax mu ci doon perte parce que dañ daan sàcc diwlin bi waaw ñun ñi ko daan liggéeyee ñu ci bëri dañ daan sàcc diwlin bi ndax daf ñuy jox benn taux contrat de prestation yi bu ñu ko daan jox pour ñu koy defaral diwlin bu ñu laajee 100 bidon diwlin 60 lañ koy jox sous prétexte que gerte gi ñu jox mënul génn 60 mënul génn 100 kon donc il y a 40 bidons yu doon réer léegi nag après quelque temps de suñu contrat de prestation boobu DG boobu s'est rendu compte de perte yooyu. léegi pour combler perte yooyu te ñu ngi indi passation de service boo leen xoolee am na benn journal bu génne woon loolu photo yi sax à l'appui nga gis yenn citerne Sonacos si ci biir Sonacos ñu ko doon bënn di tuur dëwlin bi parce que liñ ci doon jublu ñoom mooy bés bu ñu ñëwee di contrôler gestion perte bu fa am ñu ne ah perte boobu dëwlin bee tuur la c'est-à-dire que y a beaucoup de manigances qui sont à l'intérieur et aujourd'hui mënuma gëm ne Sénégal plat principal ceeb la ceeb day am dëwlin nga am dëwlin biñ ne moo bokk ci gën a baax ci àdduna bi nga am industrie bu koy defar am suffisamment de graines pour defaral la ko moom toute sa réflexion et son imagination c'est d'exporter l'arachide du Sénégal mais nag bon c'est pas de s'acharner sur quelqu'un ou quelques individus man je je dis que ya un système qui est là qui ne va pas et aussi il faut remédier à ces situations di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp l'équipe de président la chaîne 2A TV sama xarit yi ma fa am ak sama am di jàmm yi di ñaanal émission bi une très grande réussite di nuyu aussi di gërëm tous les téléspectateurs de 2A maa ngi tudd Alpha Diallo chef d'entreprise et chroniqueur. mais lii dañ ko waroon dindi e bi quoi nga dindi ci social bi xam nga lu tax bu économique bi naayisee rek social bi naayis économique bi nag mënul naayis parce que ñun dañu jot indépendance boo xam ne xeexuñu ay pancarte la ñu wane entre un bi et un non tubaab yi jox ñu indépendance continuer téye ñu fi téye woon installé gouvernement bi installé fonctionnaire yi installé lépp parce que 60 ans un pays d'Afrique en face l'océan Atlantique ñu naan euh, suñu géej gi ñu jàkkaarloo nem ba fii ba Amérique bokk ci géej ki gën ëpp jën ci àddina bi ndax ni mu nekk ci équateur maanaam diggu àddina bi quoi ni ci soleil bi di demee ndox mi day ndugg ba gis ni Sénégal boo gisee euh, muy bari coow bu ñuy wax ay euh, licence de pêche période la période boobu sax li koy marqué ñu bari seetluñ ko mooy période bi ñu naan poisson d'avril mën nga fen ci journée bi bu ngoonee nga ni poisson d'avril mos naa ko wax Tounkara ma nekk poisson c'est une réalité yàlla ko ma ne ko bi muy bind àddina bi dafa jël nag taxawal ko ci bopp jën ant ses cornes la bind juróom-ñeenti planète fii am kon jën am na solo ma am ci seetlu boo xam ne bëggoon naa ma taxaw tuuti mu taxaw ci quoi parce que sa ma mooy jën ci arab léegi soo ko jëlee valeur bi daf lay jox trois cent soixante ñu ne trois cent boo jëlee trente six mille yow ama yaa ma naan yóbbu na leen mais zéro bi yóbbu na ci ñun parce que ara tomb mooy zéro kon foo gisee zéro bi def ko Mouhamadou am ci Mouhamadou léegi 36 bi non seulement 3 fois 6 bu la joxee 18 c'est la vie xay ah, ah xaa xaa wi yaa gis dajawaat ba tey ci ñëw nga dem sóora 36 nekk Yaasin Yaasin kon boo duggee yaasin mu am quatre-vingt-trois versets ñu wàcc ko fa xam nga kii Sélé Sora kii doon verset yi yaa ngi dégg boo ñëwee nag ci quatre-vingt-troisième soraat daf lay jox trente-six verset léegi kii dañu naan mooy xolu alxuraan kii dañu naan mooy les fraudeurs waylun lil mutaffifin xool ni ñaari saar yi wute kii la mu doon ci saar la kii doon ci verset kii la mu doon ci verset la kii doon ci saar léegi nag saar nag buñ koy dégg ñun ci wolof dañuy fàtt ne saar mooy ndaa bu mag ndaa nag ñu ndaa yi ndox mi lañu soxla ak li ne ci ndox mi kon ñun géej moom lañu yàlla jëkk a may li mu ñu may ci géej mayuñu ko ci suuf parce que bu ñuy seet suñu suuf day doon ci tubaab cent quatre-vingt-dix mille kilomètres carrés de terre géej gi ñu am plus de deux cent et quelques kilomètres ci limite yoo xam ne ku fi dugg rek ñun la war a tàbb pour man fi nag tubaab yi nag baye loolu bay bi mooy ñoom ñoo soxla gerte ñu duñ ko tey duñ ko sóor kon ñii la bayloo gerte ba pare mais maa maa lay jox mu jàngal la noo koy bayee jënd ko ñoo ko soxla yow nga bàyyi dugub di nga daan bu ñu indi la ceeb ceeb bi indi la façon feebar bu ne alors ko mës naa ko wax ni ma ne ko pôle nord amuñu suuf bu ñu bayee te mosuñoo deewoo xiif ñoom ñëpp dañuy dunde affaire géej te dañee ne booy dundee affaire géej da ngay wér bañ suñu jokku jii ma dëkk ci tëngee ji ñu ne soxlawuñu woon dispensaire ñoo mujj am dispensaire ndax daal ñu feebar bi tubaab bi yàqee seen jikko yi ba ñuy lekk ay yàpp ki dibee kii kenn xamul ci la ñu commencé feebar milieu bu ne naan tooñ sax ñaa ngi bu ngeen lekk yàpp tabaski ba tabaski mais dañu am li gën tabaski dañ caa barkeelu ndax yàllaa ko dagal boo ko tegalee jën yi fonk nga ko boo ko tegalee yàpp donc xepp ku ordinaire ñun xamuñu valeur bi ci nii boo demee article vingt cinq tiré un de suñu constitution daf ne ressources naturelles yi peuple bi moom moo ko moom dañ ko war a jëfandikoo pour améliorer seen vie mu dolli si ne l' exploitation di ko jëfandikoo ak gestion bi ni ñu koy gérer dafa war jaar ci transparence waaye it delluwaat ci biir peuple bi boo gisee article 25 tiré 1 bi ci constitution bi da nga naan est-ce que Sénégal suit le droit et pourtant lii c'est la mère des lois dans notre pays boo xoolee hiérarchie de loi yi constitution moom moo nekk ci kaw ñëwal comment sont réparties les richesses de notre pays ñëwal ci meew il a été signé un contrat ou simplement un accord ak Union européenne pour ñu mën fi dugal seen meew boobu nga xam ne dawli naa avec les Chinois depuis 2014 le président Macky Sall a signé ou a fait signer un protocole phytosanitaire buy permettre la Chine dix ans ba 2024 mu yóbbu sa gerte Sénégal yëpp. nga ñëw ci accord de pêche yi 2019 2024 pour cinq ans ñu signé ay accord de pêche Union européenne yoo xamante ne chaque at ñoom dañ fiy ñëw. jël suñuy jën yi nga xam ne moom moo nekk si géej gi yóbbu mooy naa ñu jox ñu deux milliards de francs CFA par an tey ñoom ni ñuy li napp ñun xamuñu et loolu boo ñëwee sur d'autres contrats ba récemment ñu wax ci problème mu terre donc énormément d'enjeux et énormément de problèmes et on suit pas li nga xam ne moom la loi yi di wax man tey damay focaliser wu sur trois choses première bi mooy terre bi deuxième bi mooy autoroute à péage bi troisième bi mooy un peu sur les accords de pêche. ñëwal ci terre montage financier bi ñu ci def ñëpp dégg ne mille cinq cent mille cinq cent milliards dégg ngeen euh, certains journalistes notamment Figaro. génn ne terre bi Sénégal moom mais man duma ma dem foofu nan la terre bi ñëwee Sénégal man loolu laay wax pour wane ne on n'a pas notre indépendance lépp 2014 la tàmbali président Macky Sall moo fi nekkoon 2014 monsieur Macron mi nekk tey président France jamono boobu en moo nekkoon le secrétaire d'État adjoint à l'Élysée moom moo jaay Alstom mi nga xam ne tey jii moom moo yor wala moom moo defar terre bi nga xam ne moom moo nekk Sénégal nan la ko jaayee tout juste avant 2014 les Américains avec General Electric dañu sukkandiku ci benn benn loi bu ñuy wax loi Carter bu de 1977 bu ne képp ku def une ab acte de corruption jaarale ko ci puce réseau xaalis bu États-Unis États-Unis mën na la topp à titre de corruption léegi nag américains yi ñoom branche boobu la ñuy utiliser maanaam loi boobu la ñuy utiliser pour conquérir yeneen entreprise ñu jàpp ci Alstom dem ba mettre en garde à vue wala sax prendre un otage de haut dirigeant wala haut dignitaire français boo xamante ne da doon nekk ci Alstom neleen comme jàpp nañ leen si corruption soit da ngeen di fay pénalité et pénalité yooyu Alstom mënu ko woon fay wala ngeen jaay ñu branche énergie wu Alstom Macron temps yooyu ni ma leen ko waxee moom moo nekkoon secrétaire euh, d'État adjoint à l'Élysée moom il était pour pour ñu jaay Alstom wala parti Alstom boobu ñu jaay ko les Amériques mais le ministre Montebourg bi fa nekkoon jamono yooyu le ministre de l'économie moom dafa bañoon ne ñett parce que moom dafa gëmoon le produit français mu ne loolu du am parce que il faut savoir tey jii EDF moom bi nga xam mooy transformer courant moo ko léegi nag moom buur li mu doon bañ mooy Alstom jëlee branche énergie boobu cela veut dire que France dootul am indépendance bi mu doon am ci wàllu énergie ndaxte lii soppi courant boobu di turbine boobu léegi américains yi ñoom ñoo koy moom Macron a usé de tous ses liens parce que avant muy ñëw dans la politique Macron était dans un dans une très grande banque bu ñuy wax Rothschild banque boobu américains yi saay suñu bëggee def def ab OPEA ci ap euh, entreprise française yi ci banque boobu la ñuy jaar kon donc moom Macron il connaissait déjà les affaires léegi nag Macron bi mu nekkee secrétaire général à l'Élysée il a dit waa Alstom na leen américains yi absorbé nañ leen jënd je deviendrai quelqu'un dans ce pays et je vais vous faire gagner des marchés en Afrique kon donc tey marché yi nga xam ne ne nii Alstom mu ngi ko gagner en Afrique et surtout au Sénégal c'est une promesse pour mu defoon waa Alstom pour que ñu jaay Alstom les Américains et que bu fekkee yéen a ngi suivre les médias un peu di nga gis même y a des sénateurs et des députés français yuy topp Macron ci affaire boobu parce que ministre bi ma leen doon wax sànq noonu moon pour qu'est-ce qu'il avait fait il avait sorti un décret wala il préparait à sortir un décret pour dire que Alstom kenn mënu koo jaay Macron en tant que secrétaire d'État adjoint à l'Élysée il a mis pression sur le président Hollande pour ñu def le tout pour que décret boobu bañ a jàll pour que Alstom waa américains yi jënd et c'est ce qui s'est passé et le ministre Montebourg a été déçu en colère pourquoi muy battre di fight pour pour pour pour le produit français ay français nekk ci suuf di ko di ko di ko di ko nasaxal noonu. mais aujourd'hui daal si histoire gis nañ ni Macron ñiy financé campagne mooy américain ñu ko puusoon pour ñu jaay Alstom moo tax am na ay député tamit français yu topp circuit boobu pour xool nan la ñuy toppee Macron pour une haute trahison. léegi nag 2014 bi événement yooyu passé rek moo bu raawaat ci léegi nag 2014. bi nga xamee ne def nañ transaction bi nga xam ne 2014 bi nga xamee ne problème boobu am na ci ministre bi nekkoon économie France jamono yooyu ak ak ak Macron jëlee fa ministre de l' économie boobu yóbbu Macron mu nekk ministre de l' économie foofu Macron sax a fay bi nga xamee ne problème boobu jolli na sax dañu dàq ministre boobu nekkoon de l' économie jël Macron pour yóbbu ko def ko ministre de l' économie mu acté vente bi nee na amu ci benn kersa te amu ci benn loo xamante ne da koy rëccu nee na lu baaxoon la pour Alstom oui léegi nag li mu promettre Alstom jamono boobu perteloo naa la fële dinaa la gañeloo le président Macky Sall boo xoolee tout juste bi Macron nekkee président rek dafa dem France. et boo xoolee jamono boobu la lépp xewee. kon tey terre bi du lenn lu dul bor bu Sénégal di fay juge woon ci ab dige diggante Macron ak waa Alstom pour ñu jaay parti énergie wu Alstom les Américains. problème bi boo ko bëggee àjji dëgg foofu ngay tàmbali. ma am benn seet gis nga boo duggee alxuraan da nga naan benn ñaar ñet ñeent muy jigéen les femmes miisaay yaa ngi dégg mais gis nga boo jógee miisaay ñaa ngi ci teg maahida maahi veut dire la table servie mais boo demee ci commentaire yi dañu naan service bu benn jën la ku lekk suur église moom lay wax la pêche miraculeuse kon gis nga jën ni mu amee solo quoi boo demee chez les dañu naan mooy dund yàlla yi parce que dañu naan yàlla ba mu yàqale la jóge kaw asamaan léegi ni ci kaw suuf yëpp ba mu des laaj ak soble defe naa ab pooro ne jën rek ci new yow ñu bëgg la naxe nag bay ak sàmm koo xam ne ji ñetti weeru nawet ñu am ñun du ñuy Ivoirien du ñuy Guinéen ñooñu ils ont plus de huit mois de pluie mën nañ leen bayloo ñun li ñu doon may li ñuy jëlee ci géej gi bu fekkoon ne tubaab yi sàkk luñ ko pexe dañ koy jël def ko ci irrigation mën a bay lu ñu neex. xam nga ne ma gis nga dinaa la jox benn secret booy lekk jën ci ngay sa màgget ci lay gën a yéex doo am problème cardiovasculaire yi ñuy wax ni yëg léegi daanoo gis léegi nekk ci daanu na ci gaal gi wala daanu na tefes amatu amul suuf am léegi nag Sénégal dafa mel ni ñoom géej gi dëkk rek ku la ne géej gi amul jëm dafa la bëgg a nax qui veut tuer son chien l'accuse de rage mën recenser parce na nga xam lu jën di jiw dañ ne ah benn yaaboy bu nenee rek c'est des millions c'est des millions de kon ki lay bëgg na te lay naan fii baaxul yow léegi ñu ngi lay ay pirogues yi ñuy moderniser pirogue kenn da koy moderniser jëndal yi tubaab yi nappay chalutier yaa ngi jënd ay oto jënd ay euh, avion mais doo jënd chalutier jox ko ñii ñu napp créer ay usine solaire ñu n'a même pas besoin de coût d'énergie pour la nourriture nga def réseau national de distribution des produits nit ñi nag nekk fii naan pepp yow yaa ngi am géej goo xam ne boo jaayee kilo jën mën si dund fukki kilo euh, bële ngay dem di ñaani bële alors que yaa ngi dundal coréen di dundal américain di dundal Europe yëpp la preuve est ça mu ngi Sénégal yëpp dama leen koy conseillé fexe leen ba am livre bi avec le net tu peux avoir le livre que tu veux kii Sénégal dafay bokk na ci lépp cent plus riche de ngeen di si photo ay ñoomin ke dañu bàyyi lébu yi bàyyi gën ndar yi dem ci ñi nga xam ni seen njàng te dañu doylu ndax dañoo gëm yàlla ñooñu la ñu jël yàq suñu géej gi yàqet ba pare dem bàyyi. France du ñu nangu ñuy dem foofu di bàyyi raisin di ka ñuy joxe licence ñu bàyyi raisin ba pare di di leen jaay sàngara. gis nga chinois yi ñuy waxati trois. quatre mois de pêche yoo xam ne jën ñi dañuy traverser pour dem vers vers vers là où les deux océans se rencontrent xam nga ñun ñu ngi ci Atlantique Atlantique bi ça presque ay quatre-vingts millions de kilomètres carrés mais l'océan Atlantique euh, euh Pacifique cent soixante-cinq millions de kilomètres carrés d'eau kon xam nga fa mu géej ju mag yi daje jën yu nag bu fay dem avril la mars avril mai juin yaa ngi dégg ñu moo tax dañ koy wax ne les années du poisson xoolal booy seet ci horoscope ñu tudd mars lan lañu poisson dañ ñëw naxa naxa nax mu alxuraan génn xoolal Sénégal ma jox na ñu wax ci dëkk bi moo tax amul licence su pêche defal ñu Mauritanie Mauritanie da lay jox licence nga napp tu viens vendre les Mauritaniens ñu jël jëm yi jaay ji fu leen neex jël ko marchandise moo tax ñu am marché Dubaï. ñu ma lay joxe licence yaa ñu am technologie boo xam ne aw ma ngay ñëw di manque géej man dañuy tolloo doole ñu daje ci ring mais too ma ëpp doole pare nga ñëw ne damay napp ñun nañu dem napp ci géej apporté par an au Sénégal par les accords de pêche avec l'Union européenne ne représente même pas un un pour cent du budget national d'après un expert yow ngay dundal Europe yëpp feeñ na fii il est il est il riche donc da ngay commencé ci un bi gis nga kii dafa pauvre ba def fii dàll bi nga xam ne da doon àbb pour jàngi école ci île bi pauvreté bi ci ne wax na ko ci biir bi mais gis nga ci deuxième livre il a été décoré président France bi ko day bokk ci traversé Atlantique voyage bi du dara bi fott la ko am benn gàll moom am na plus d'une dizaine de gaal te mu nga xoolal ba Amérique du Sud mu nga ba Pérou ay marins sénégalais la fa yóbbu boo demee état bi amul sax justice KSF moo jël mbubb ne moom moom société yooyu yëpp ba pare am na lu ci tegu day defar jëmu boppam ba ñu ngi koy woowee monsieur Turbo en France France nag am nañu ci contrôle ba saboté woon ko nee nañ gënam yi sax ndax indiwu fi ko ndax chinois yi nekk Californie dañ ko bëgg jën yooyu muy defar calis Espagne dégg naa chinois yi ne Californie moom lu koy yónnee ñooñu yónnee ko seen bopp nañu def analyse jën yooyu ndax yàlla yàqal la ngay defar si biir ko léegi nag ñu ñëw ci euh, euh, problème autoroute à péage bi man du ñëw ci montage financier yi pour teg autoroute à bi parce que pour man montage financier yi ñu tegee autoroute à yi moo gën a yéeme sax la pyramide de si bi événement wu mars yi passé 2021 bi mu jàllee da nga gis ñu wane à grande pompe ci télévision yi que l' état du Sénégal dugg na ci actifu Eiffage à hauteur de vingt cinq pour cent mu joxe dix neuf milliards pour am loolu. mais avant mu ciy dugg Eiffage dafi waroon nekk de deux mille neuf à deux mille trente neuf delloo ñu autoroute à péage mais léegi comme état du Sénégal da ci dugg ñoom ñu nangu waxtaan mu ne comme léegi da ci dugg vingt cinq pour cent léegi man dootuma fi toog ba deux mille trente neuf da nga may tegal cinq ans ba deux mille quarante quatre. léegi cinq ans yooyu ñoom ñu tuddee ko zone de transition maanaam nee na ci cinq ans yooyu la ñuy def transfert compétence waa léegi deux mille deux mille neuf ba deux mille lan moo tax transfert de compétence mënu loolu am foofu c' est la première des questions et deuxièmement 2009 ba bu fekkee ñoom d' accord nañ ne 95 pour cent du personnel est sénégalais daanaka lépp ñun ñoo koy def lan moo tax ci biir 30 yooyu sénégalais yi nekkoon di liggéey ci biir foofu mënuñu xam ñu xam na gérer autoroute à péage te autoroute à péage boo ko tabaxee ba pare nañ mën nit wax ban technologie moo ci am ba il te faut 5 ans pour que yow nga jàngal ma ni ñuy yore autoroute à péage bi tout en ànd nañ 30 samay doomu réew 95 pour cent di def liggéey boobu c' est incroyable ce qui se passe dans ce pays nga ñëw ci problème financier gis nga Sénégal maanaam mu bàyyi woon France ba 2039 mu yor ko mu bañ ci dugal 19 milliards bañ ci am 25 pour cent moo gënoon fuuf ñu yokkal leen 5 ans je vais m' expliquer chaque jour autoroute à péage bi mu ngi indi en moyenne 150 millions de recettes lay def boo ko xoolee su ma juumul à la fin de l' année entre et milliards. léegi dama koy misaalee ci misaal bu gën a simple ñu bañ a utiliser ay milliards pour que tout le monde puisse comprendre jëlal tey autoroute à péage bi muy génn 1000 francs par jour ñu ne Eiffage war na fi toog semaine kon si semaine yi Eiffage dina fi am mille francs léegi ñu ne noonoo nañu renégocier contrat léegi Eiffage au ngay am mille francs ngay am cinquante man may am 250 mais pour ma jot cinquante yooyu man damay jox Eiffage ñaari junni. léegi leen baax li ma leen léegi comme nag lay am. mu ne léegi man mënatuma fi toog semaine yi ma fi waroon toog danga may dollil yeneen ñetti fan. léegi kon Eiffage dina am cent cinquante fois dix mooy 7 jours yi nekk ci semaine bi ak 3 yi ñu ko dollil donc Eiffage noo seulement jox naa ko dix 000 pour mën a am 250 yi par semaine mais léegi dama ciy dolli 750 yi muy am par jour pour 10 jour kon boo jëlee total bi Eiffage jël na cinq cent te bu ma ko bàyyi woon ci juróomi at yi moom 7000 képp lay am. léegi nag na ma yan technicien wax comment ils ont fait leur calcul ba ministre Abdoulaye Daouda Diallo ak Amadou Hott ak ministre du transport gorob président Macky Sall Mansour Faye mën a signer contrat bu mel noonu di joxante loxo comme si dañu décroché woon la plus grande des solutions du monde je vais me la répétition est pédagogique Eiffage dafa amoon contrat wu semaine misaal chaque jour muy am 1000 francs ñu ko bàyyi woon rek ak contrat am boobu dina am 7000 ci semaine bi dem bàyyi ñoox loolu ñun ñu continuer di am 1000 francs mille francs 1000 francs léegi ñu renégocier waat contrat bi. Sénégal ne man dama bëgg téeméer yoo jël dama ci bëgg ñaar fukk ak juróom defe naa noonu lañ koy waxee cinq pour cent. Eupage ne ko ah loolu boo ko bëggee il faut nga jox ma ñaari junni balaa ngay dugg état du Sénégal jël jox ko ñaari junni mooy 19 milliards yi mu jëndee 25 pour cent yi. léegi au lieu Eupage di am 1000 francs par jour léegi Eupage 750 lay am mais Eupage ne ko bu boobaa. dootuma fi toog semaine yi danga may tegal yeneen ñetti fan léegi si ñetti fan yooyu lay jàngal say doomu waa réew nan la ñuy yoree programme boobu tout en sachant que say doomu waa réew nekk nañ ca semaine di ca liggéey te ñoom ñoo ca ëpp kon lan lañ leen war a mën a jàngalaat ci ñetti fan yooyu ñu doxal léegi da ngay gis ne ci fukki fan yi Eiffage dina am 7500 ndax 750 lay am par jour Sénégal am 2500 léegi Eiffage lan la gañe joxoon naa sa ñaari junni bi may ba pare ci fukki fan yi mu am ci 7500 boo leen boolee muy ñaata di 7500 te buñ ko bàyyi woon ci semaine rek bi nga xam ne ne moom la fi waroon toog du jël samay 10 000 te 7000 rek lay jël te dem léegi nag mu ngi di 7500 waa léegi Sénégal daa gañe wala daa fay foofu laay wax. léegi nag dernier point bi may wax mooy que manque de visibilité bi nga xamee ni gouvernement du Sénégal am na ko à chaque fois affaire suñu kaw lay ay contrat yoo xamante ne da nga naan ñii yan école lañ jàggee wala lan lañ xam ba ñuy mën a tegal lu mel nii nga xam ne ki gën a ñàkk xam-xam Sénégal boo ko doon def loolu du ko def. les accords de pêche bi fi duggee en deux mille dix neuf su ma ñu ne les bateaux européens mën nañ dugg fii Sénégal nappee nu leen neexee ñu fay ñu deux milliards par an mënoo quantifier ñaata la def waaye loolu gënul garaaw même instant ba li tax Europe def loolu. parce que divorce moom ak Angleterre mu ngi am ci li ñuy wax le Brexit. parce que le Brexit était reposé li ko gën a tardé lu tax mu am cinq ans de négociation parce que nappkatu anglais yi ñoom ñoo poussé woon pour que britannique yi génn ci ci union européenne ndaxte ñoom seeni ndox seen géej dafa bëri jëm bëri boo xamante ne européens yëpp dañ fa doon ñëwee di napp see. léegi bu Brexit bi duggee loolu dootul mën a am. ñu toog cinquante ans di négocier mille cent pages. la ñu négocier lépp daanaka sur la sur la pêche. bañ na ko ba Brexit bi duggee. européens yi ñëwuñu rek génn ci géej gi dañ leen négocier ay instant yoo xamante ne ay moment yoo xamante ne mën nañ ñëw di napp di napp di napp ba cinq ans après Brexit bi ñu mën ko dakkal définitivement. léegi il fallait ñu trouver alternative à ça si la Union européenne ñoo signé contrat yooyu ak l' état du Sénégal pour que mu mën a ñëw napp ci géejam. mais ces gens là ils réfléchissent comment. la charité bien ordonnée commence par soi pour nga xam ne ñun suñu problème yi Europe la dootul France parce que France dafa bokk ci union war nañu xam loolu ay France dégage bu ngeen doon sax français dañuy rey Bruxelles la ñuy décider lépp c'est l'union européenne Brexit africain yu bari comme ba ci yow la ñuy def ci Brexit ah mës nga xam ne Brexit bii am jëlee nga xam ne bokk na ci producteurs yi gën a mag ci àddina bi moom mooy génne aluminium africain yi la ñuy wax Brexit mais bu ñu demee France ne aluminium ndax bi dafa metti quoi te xoolal xamul tax ñu mën ko def ils ont fait exprès ñun ñu nekk ci kaw suñu maam lañ man bu may tiitaroo neewul Cap Vert de maa ngi tiitaroo fa ma cosaanoo kon ñooñu la ñu fexe ba armé leen ñu am ñaari sénégalais sujet français ak citoyen français ba xeen am ci Senghor joxe na sama yaay ci loolu da koy présenté Ndar ne ile de Joal mu ne foog mu woon waa Ndar ne man du ma citoyen di affaire citoyen yooyu di affaire tubaab ñun dañu xam xam nga doomu aadama bu fekkee dafa bëgg rek ci àddina lu muy jàpp na jàpp diine dafa ne ummati la communauté bu doon kenn kenn sa kenn kenn rek ku nekk xëccu xëccu keneen. parce que communauté boobu moom moo taxaw ci Afrique. actuellement addina bi xam xamuñu ko de mais Europe gis ñu américains yi di leen di jàppale. la ñuy jamaaleel ndax ñëwee cinquante quelques états la ñoom ñu ngi jëli Ukraine nag jëli feneen nag ba gis nga dañu bëggoon jël Maroc ak Tunisie. les événements bi moo tax loolu kenn waxatu mënoon na tëdd Europe nekk ñoom ñooy les maîtres de la colonisation boo gisee Europe euh, Amérique la jëlee. parce que Amérique ñu commencé ci président yi nga xam ne sax jàngu seen jàngu bariwul xoolal Ronald Reagan moo ne l' Amérique aux Américains commencé xaalis bi ñoom yóbbu Europe yëpp ñu commencé di ko def Amérique kon Europe lu ko dese ñun ñoo war a am fayda fayda kenn du la ko sàmmal kenn du la ko wutal mais ñu ñu dara yàlla xool dañuy defal ndox mooy suñu frontière te Sénégal xam nga lu tax ñi ne Sénégal yëpp dama lay jox benn exemple boo mosul seet nga boo nee ay naara fa nekk di wax naar ay pël topp Fuuta Tóor nga ne ni Gine Maxa Saraxule yi ñëw nga ne ni Sudan Mali ñëw Fuuta Jaloo ñëwaat Koñaa ji Basari Balant ba ngay dem Fuuta Ferdo ñëw Welingara mooy bienvenu ci kii nga dem ba tëj leen ci géej kon xeet di nekk ci intérieur ak ak boobu bu ñu jógewul ci xeet yooyu fu ñu jóge peuplement bi mu ngi commencé mu ne da nga naan c'est les l' l'éclatement de l'empire Mandé et fuuta ñoo daje ñu jàngal ma jàngal moo xam ne bi dañ ci teg ay lii lañ la bëgg a jàngal te la ma ko waxoon rek du dañ ku la abali bët fa ka ngay xool ku la jàngal la ka la lay jàngal. pays boo xam ne bi dañu def ay lettres lettres lettres lettres. et je te donne l' souvent on parle des bourses de Lamine Gueye mais xam nga bourses Lamine Gueye yi lan rek la am wax avocat médecin agronome éleveur mooy lii fi am dañ ko préparé. bay leen sàmm leen faju leen layoo leen. où sont nos techniciens nos assureurs où sont nos xam nga tubaab. ku la baax na rek daf ko jegewul mais àddina bi toll toll na foo xam ne combattuñu kon loolu la Covid jàngal ñun xam man Covid du ma ko woowee mu Covid dama ma ku weddi marché rek ngay saa mu jox la ku weddi dix-neuf mooy waaxi yëpp c'est une punition def nañ yoo xam ne c'est sérieux moom mooy dellu si kii muy gob Sodome et Gomorrhe amee noonu ak ak l'histoire de les gens ñu dugaloon ca fosse ba taal la yàlla jógu fii bu ko neexee nag ëpp waaye bu ko neexee agir mën nañu change France mu ngi canicule noot daama ngi lakk ah ndox maa ngay ëpp ñu seetlu seen bopp ñàkk ngëm yàlla topp bànneex rek passion émotion ambition rek ay union union yoo xam ne daara du ci laa divination daara du ci yàlla mais yow kilifa ci kër ngay def loo xam ne du noonu lu ma la tegul ca moom la moo tax nañu ñaan yàlla ñu dellu ci yàlla ma joxal la benn exemple Sénégal dëkk la bu baax ba pare xam nga lu ko baax kenn mënatul dindi liggéeyu mag ñi su nekk ba tey xaw ma baax na xaw ma dama ne kenn mënatu ko dindi moo tax bu ñuy wax waxu terroriste nañ leen ne nañ mu bàyyi wax terroriste fii ay taalibe fi am taalibe maam Bamb taalibe maam Ablaye Niass maam la maam Bam maam Mali maam Babacar ñoo ñoo fi nekk l'islam nañ lay jaare pour def le terrorisme ñun mag ñi jiitu nañ ci ñun war nañu teg fële l'islam bëgg a gànnaay boo xam da nga koy tuuroo sa moo tax ngay layoo lool mais yow mii kan moo lay def kii nga ne ko man Tiwaawan laa jëm kii na la maa nga jëm Njaasaan kii ne la maa nga jëm Touba kii na la maa nga jëm lew na fii ñoo ñoo ko composé xam nga li ma la te ñooñu gis nga ki njëkk euh, leen dégradé moo leen di gën a soxla ci waxtu ki ne woon c'est des mara bu ordinaire te du waxam dañ ko ko wax waxloo lu ci indi marabu ordinaire ou non ordinaire parce que quand di dis que les marabouts sont ordinaires nous les citoyens nous sommes des super ordinaires parce que ñooñu lañ gëm gis nga nañu seetaat dëkk bi te dëkk dafa dañu war a wàcce ñëpp ñu teg la wal assi c'est pas pour rien man ñu bàyyil ñu wax jooju kër diine yëpp dañ ci ànd yàlla bu wàcce woon wal assi rek doy na te xamul nekk ci wala assi temps bu la yàlla mënti may day jeex ñii yàqul seen temps ñu la des na am na wax am ñu saaree mooy gars yi nga xam dañu gëm yàlla ba pare def lu baax ngeen jàppante ci dëgg li ci des nag muñ la ah bala ngay muñal da ngay muñal koo xam ne xam na ne yaa ngi koy mais koo xam ne bañ ko joxee nguur la mu waxoon ñëpp dëpp du éclaireur man loolu rek laay wax gars yi je respecte bien le président mais rakk la ci man maa ko mag te le droit d'aînesse yàlla la bu may wax waxu constitution ak institution man dama ko naan le droit d'aînesse yàlla la moom dégloo tul Sénégal ñuy soxla Sénégal déglu na leen di ko waral yëpp na yàlla mooy xam nga beneen ñoom

sa population ñëpp ñàkk seen liggéey ndax feebar boobu c'est des chômeurs conjoncturels. libérez les otages libérez. benn jeune ñii di force de l'ordre yi dañ ko doon li nga xamante ne moom moo di bal ngeen xamul ba xam dund na wala dee na. aujourd'hui on nous cache beaucoup de choses. dëkk priorité la. dañuy lekk naan faju. ce que ces statistiques la prouvent comme on dit en wolof y a la réalité. priver une génération de l'expérience du travail, c'est les condamner à la déraison et les préparer à un lendemain mortifère. Quelle soit la durée du mandat, nul ne peut faire plus de deux mandats. mën ngaa nekk patriote te doo nekk góorgóorlu Ousmane Sonko patriote la mais du góorgóorlu. da nekk sept plus cinq faudra pas